tey dimanche juróom-benn fan ci weerum novembre 2022 lu jëm ci teg loxo gi teg loxo taskatu xabaar boob di Pape Alé Niang waa Synpics na àddunañ ci mbir mi ginnaaw bañ tegee loxo Pape Alé Niang waa Seneweb daal di koo xamle ñoom kuréel gile di SYNPICS nga xam ne ñoom la ñuy tuddee des professions de l'information et de la communication du Sénégal ñoom waa SYNPICS googee nag daal dinañoo yoo ki nga xam ne mooy layookat bu journaliste Dakar matin bi di Pape Alé Niang ginnaaw layookatam boobee di maître Bamba Cissé moom kii di avocat Pape Alé bi ñu ko jotee daal ngir mu leeral leen lu jëm ci teg loxo gi nga xam ne teg nañ ko loxo kiliyaanam boobee lan moo waral ñu daal di ko teg loxo ñoom waa SYNPICS nag gannaaw ko lañ génnee ab bataaxalu communiqué jaar na ko seen page Facebook di xam ne daal lu nu mel dañ koy daal di topp ngir gën see xam lu leer waaye lëkkaloo ci ak kuréel gii di muy kuréel gi nga xam ne moo nekk euh, coordination des associations de presse salon association de presse ñoom ñooñu daal buñ sukkandikoo ci xabaar bi nga xam ne daal nañ ko jaarale seen page Facebook ñu ngi koy ci daal di wax ci fàttali Pape Alé Niang moom nag tey ci dimanche gi lañ ko teg loxo waa sûreté urbain ñoo ko teg loxo yobu ko foofu ca commissariat central bu Dakar si ndigalu kile